salaam barakatu yéen ñi seetaan marketing TV tey maa ngi fii ci Thiès ak sama papa Père Ndiaye Père Ndiaye présenté wu sama gars yi léegi nag. maa la wax loolu de Père Ndiaye président Lat Dior. président Lat Dior donc bu ngeen dugg président Lat Dior moom moo nekk seen droit moom mooy jaay lan nga jaay ak Gandia dégg nga. moi je fais de la maroquinerie. très bien alors maroquinerie mooy la. la maroquinerie mooy affaire artisanale mais. xam ne tout ce qui est cuir. kon la maroquinerie et marocain euh, bokkuñu dara. ay ay mbokk lañu parce que ah. ñoom dañuy fayal la maroquinerie comme ñun ñu koy defee. très bien alors ñuy def a daal yu rafet vraiment ak i saag mhm. daal tout ce qui est de ñun dañ koy def. alors di ko def fii Thiès nag au village artisanal ak di ko def ci suñuy atelier boobu. waaw di si jaay lu rafet tam. a ngay jaay. bon maa ngi jaay ay dàll yu rafet. ay ay cirab ah di jaay ay mopense yu rafet vers gardien mhm. alors di jaay ay sac di jaay ay babus yoo xam ne vraiment c'est la classe mhm. ah ak dalu jigéen caraxu jigéen pour euh, repose les pieds mhm. alors ak euh, ak beaucoup de couleurs tous les couleurs par exemple avec des euh, par exemple des des beaux portefeuilles nga jaay ay portefeuille aussi ay portefeuille yu rafet en pot serpent en pot croco en pot euh, simple kon lii c'est daru serpent la lépp serpent la waaw serpent la ak croco bon ak ay tableau gis nga babousi aussi ana tableau yi tableau yaa ngi nii gis loo tableau ah, yaa mooy tableau daar yi quoi tableau daar yi avec de belles ceintures aussi gis nga ko d'accord da nga jaay ceinture ay ceinture yu rafet ay ceinture la tout ce qui est cuir rek dañ koy même le thermomètre dañ koy jaay lépp lañ ci jaay thermomètre yi dañoo jeex mais maa ngi def commande bi pareegul mais waroo xaar muy jeex waaw mais d'accord des fois da lay bett d'accord en même temps de ah. cartable aussi cartable ah, aussi ah, cartable bi moom base bi lan la lu ko liggéeyee base bi crocodile la crocodile yi crocodile dëggantaan njaay moom la du crocodile foofu quoi non non non non non foofu ah gis nga saak shopping yi. li Médine Thiès la. Médine tout Médine Thiès la. même les sociétés tout c'est Médine Thiès. d'accord ah, d'accord waaw mhm. ah, vraiment daal ñoo ngi fi di góorgóorlu. affaire yi na moom lu doon li ci kanam ni lii. lan ci yii nii. waaw yii ay saak la des petits sacs. Mhm. ah des petits sacs. même les sacs pour les hommes aussi gis nga ko. ah ça c'est pour les hommes la yoo xam ne pour homme. da mhm. nga cee def say pièces seen. itam yoo xam ne dafa gis nga ko. boo dee voyager par exemple say passeport ak. ak sa xaalis ak sa bagage yëpp mën nga ko cee def même bu la neexee boo solee xaftaan bu mag comme les Ibadou Rahman wala les machin les les les euh, nu mu tuddati di gars yooyu def nga dégg nga ko gis nga ko. Mhm. on peut de belles choses rek. d' accord en ah, pour serpent en même temps. lii serpent bi. d'accord ah, serpent moom dagal naa wékkoon. non dagal la dagal. waaw waaw waaw. lii mën naa jël samay bagage. waaw ah, lii daal loo bëgg a def moom say porte mu ngoog say téléphone mu ngoog. d' accord. sa téléphone nag. bii muy jar. boobu 30 000 francs lay jar. bi 30 000 francs lay jar. 30 000 lay jar. d' accord am na aussi marron. am na noir. da ciy def tous les couleurs daal. d' accord parce que it boo amee sa par exemple sa say pièces say poche say téléphone say ah pour assemblée daal pour moom la pour góor. bii pour góor la aussi pour góor la. bii lu muy jar. boobu 20 000 lay jar. bii 20 000 bii 30 000. boobu 30 waaw. saako kooku bii lu muy jar. saako kooku 85 000 lay jar. saw pro bi quatre vingt cinq mille d' accord euh, salaamaaleykum mbokk yi ñuy seetaan tey ñu ngi ñëw fii ci Père Ndiaye comme ni ko digee woon waxtaan ak yéen ci nan la ñuy nan la ñuy tey euh, ngeen baal ma euh, je te rappelle je te ñu ngi waxtaan tey ci wàllu njaay naka la ñuy jaayee. génnal tuuti saag bi moom la. waxtaan noonu nañ ci wàllu wàllu ni ñuy jaayee te doo te doo te doo wàññi. xëy na li bëgg a xamle mooy boo joxee prix njëg boo ko joxee nan ngay def ba client bi du sentir ne seer na fële ca somon wala Ngaparou wala Saly dafa def benn vidéo boo xamante ne bii dinañ waxoon ne mën nañ jaay te duñu wàññi. te nag li bëgg ñu xam ko mooy nan la ñuy défendre prix boo nee nangam laay jaaye prix da nga ko war a introduire conclure ko ba ki koy déggul saf ci moom masalan saw crocodile bii lu muy jar man la quatre-vingt-cinq mille quatre-vingt-cinq lay jar nit ki boo koy jaay bala nga ko wax njëkk da ko war a laaj ba xam est-ce que bëgg na lim tiim masalan client bi da la Baye bii lu muy jaar fekk avant ngay tax ci njëg gi laaj na la fu mu jugee ni mu ko liggéeyee lu mën a def ñaata at la mën a nga wax loolu lépp ba pare mu ne la lu muy jar danga war na ko est-ce que produit bi est-ce que saag ak sa bëgg-bëgg bu nee waaw jàppal ne nit bu bëggee njëg mënu koo teree jënd ku bëgg njëkk du ko teree jën kay kay kay kay jëm ci la bokk jëm ci la bokk waaw parce bi warul tax ñàkk client client moo gën a am njëriñ vidéo loolu ci wàllu marketing la bokk léegi client bu ne laa lu muy jar ba nga defee càmbar ba xam ne méngoo na li mu bëgg bëgg li bëggam danga naan ko nangam lay jar donte milliard lay jar da nga koy wax ak fierté saag bii de quatre vingt mill lay jar mu ne ah seer na de li nga ko war a laaj mooy lan moo tax nga ne seer na laaj boobu moo lay permettre nga xam li waral mu ne moom seer na ci moom seer ñaar a koy waral soit daa seer ci moom wala kii kii jënd li yor doyut waxoon nañ leen nan la ñuy def ba mën koo jaay duñ ko wàññi duñ jëlikaat te nag li ñuy def mooy défendre prix bi nañ fi leen bañ jaay parce que yeneen daa seer ñu xool ni muy doxalee moom. wax ma ni nga bu bësa rek. loo bësa rek. bu bësa rek bu ko jaar ba dinaa ko. ah fu mu yem fu mu yem. waaw xanaa ba ñu def ko set bi. waaw sa fay nga si nga jaay. non loolu moom parce que sama année bés dama jënd ci kado indi la ma xaalis waaye suñu nit boo damay jënd xaalis. waaw daal xam nga nooy def. ba dama jënd xaalis. non non dañuy wax ba dama ko jënd. waaw d'accord wax ma leen ci mën a fay bokk jaar. non jaar ma yow waxal jaar. non non jarul man ngay di ñëw yow kay amal gémmañ mën ngaa waxaale wax ma leen ci man. 3000 gàtt. dernier prix bi 6 000 non ay 3000 ak 6000. xanaa seetloo ma li ma mel. moo gis naa la yow kay. yow kay neexee yow loolu kay mën a lu ko wér. defal ma loolu rek ma dem ñëw. ma fay rek yow kay xam nga nooy def. dama indi 6000 rek jox soo ko defee 3700 lan ma ñëw. yàlla xam na ne 6000 lay def. ma 3700 yeeg tamit nag. du ñu werante dama rek ba dellu si. man kay du amul dellu si lan ma ko bëgg. waaw léegi boo ñëwee. nga xam nga indi 6000. kay kon waaw kon amul problème maa ngi ñëwaat. bu ma ci mere non yàlla sa ñëw bi xam ngeen ne li Baye Ndiaye def waxoon nañ leen ne kenn du ko def ci wàllu jaay. Mhm. newoon nañ leen ne bu kenn a wàññeeku boo ko doonee wàññee 1000 ko lu jar waaw ñax naa nga am lu jar 1000 200 war a soxla. Ah, ah, ah, may am ko lu jar 1000 nag. moo gën moo gënoon koy wàññil 1000 francs. mais loolu mais nag keesu différence dafa ëpp loolu. ku la ne 8000 francs nga koy fay 3000. vraiment dina baax xam nga mi ngi ñëwaat te 6000 wax lay da ngeen jubóo. waaw kon li gënoon ci yow mooy nga ne ko ah yow ko ginnaaw sa anniversaire. Mhm. xaaral ma jox la cadeau anniversaire boo ñëwee boo jëndee sa cadeau bi da nga loolu moo gën ci yow mhm. ma mën cee teg dara def ci waaye kuy fay ko non non non li ma la mooy yow doo wàññi 6000 moom day joxe waaye yow doo wàññi danaa ko joxe 7000 ma may la lu jar 1000 francs su ko defee day mel ni da xam naa li loolu dañu ko def waaye kee ko def loolu si jënd dara kee ba ma ko bëggee dàq na yaa ko fi téye bu dàq di bilaay léegi <laughs> euh, nan la ñuy nan la ñuy défendre prix dafa am lu ñuy wax la méthode de l'addition la méthode de l'addition boo nee client bi sac bi 85000 la jar nga teg ci expliquer lan moo tax muy jar 85000 sac bi 85000 la jar ndaxte ñi ngi ko liggéeyee teru deru crocodile deru crocodile naa am ñaata at naa am soixante ans trente mën naa am soixante ans mais saako maanaam soixante na million dëgg dëgg loolu mooy la méthode la loolu mooy la méthode de l'addition da ngay la deuxième méthode mooy la méthode de la soustraction soustraction mooy bu jëndul salle bii nar jënd beneen la muy ñàkk mooy saag bi lan la gën a yeneen saag bi lu mu gën a yeneen di paper lu mu gën a bii parce que pratiquement saag yi ñu jënd fii en général mhm. ça vient de Chine Chinois Chinois yee koy jaay kon di ko ci réew mi déet du jóge ci réew stoff c' est pas du cuir. ou bien ay déchets lañ koy liggéey. yoo xam du cuir ay ay déchets lañ koy liggéeyee. Ah, mhm. alors mu nekk saak boo xam mun na la indi sax feebar ndax saak bi xamoo lu ñu ko defaree. très bien donc kon alors jënd li ñu defaree ci réew mi. très bien ci original parce que saak pour ko en Afrique la ñuy mais boo demoon en France. dem dem dem magasin Hermès. fa muy jaayee kuroko. boo ko laajee wala Vuitton boo ko laajee saak kuroko dina laaj. deux mille cinq cent euros wala deux mille nangam euros. très bien loolu la méthode de la soustraction alors euh, Afrique Afrique la. très bien la méthode de la division nag mooy nga jël njëgu saag bi nga diviser ko par li saag bi mën a durer saag bi lu muy jar. saag bi quatre vingt cinq mille kon ñu jël njëgu saag bi mi ngi jël quatre cinq mille. ñaata at la mën am. saag bi mën naa am vingt ans yow. vingt ans nga diviser ko par vingt ans. mooy saag bi 4250 nga ko jëlee ci at. ci at mu ne waaw léegi bu ko jëlee par jour jour bi la 360 jours. mooy kon saag bi yow 11 francs la dikk par jour. <laughs> loolu la méthode de la division. division <laughs> da ngay jël njëgu saag bi. waay waay waay nga diviser ko par. par par par par année. par euh, par diir bi saag bi mën a dund. waaw te bu ma xoolee yow bi may doole 100 ans nga ma waxoon. waaw bu ñu jëloon 60 ans ba saa yu dikk sax dërëm par dërëm par sax boo jënd ci dërëm ko am na aussi seen méthode ñu naan la méthode de la multiplication mm. bi mm. nga di ko yokk di ko yokk di ko yokk di ko yokk ba mu ba mu kawe mm. léegi bu ñu jëlee saako chinois ñaata fan lay am saako chinois maximum maximum 3 mois lay def saako chinois boo ci jënd boo di jënd 3000 3 3 mois boo ko jëlee ah. mooy saabu lu muy jar. saabu 6000 wala 7000. c'est bien 6000. waaw lan lay par 6000 divisé par c'est fait là 6000 par. 3 mois. muy mois 2000. divisé par 30. Euh, muy 66000. waaw mhm. euh, est-ce que muy 66 francs. Mhm. saabu chinois 66000 mhm. francs lay jar. par jour par jour 65000 francs 65. 65 bi man 11 francs la par jour. boo jëlee 66 nga mooy ci 11 mooy boo jëlee sama sac bi bis bu nekk di nga yaxanal 55 francs 55 francs boo ko multiplier par mois. mu nekk 1650 nga multiplier ko par 12 mois mu nekk 20 040 francs nga multiplier ko par 35 35 ans mu nekk 740 000 701 sama sac bi de boo ko jëndee. moo gën jeew yow nga jënd saako chinois ndax di nga mën a yaxanal 701 mille 400 francs ah. par at noonu la ñuy défendre prix bi ci mujj mooy la méthode de la relativité da ngay comparer li nit kiy joxe ak li muy jël sac bi boo ko jëndoon France 2500 euros lay jar 2500 euros gën ngaa néew gën ngaa néew mooy bu ñu wàññee mille PayPal 655 mu nekk 1 million 635 mille cent yow mën a sax de moom leen ba 3 millions wala 4 millions de francs CFA kon jënd suñu saag yi moo gën jënd leneen kon tey li waroon si waxtaan bi moo ñu leen wax te nan la ñuy défendre kon pour defendre prix am na 5 méthodes l'addition la soustraction la division la multiplication et la relativité am na beneen boo xam ne wax la méthode du positionnement positionnement mooy wane ne saag bi moo gën ci saag yi te sax saag bii moo gën ci saag yi parce que jul original lañ ko defaree doomi réew mi ñoo ko defaree te fii ci Thiès lañ ko defaree kon do mbokk yi ni ngi leen dox jox dig daje beneen yoon ci beneen barab ma fàttaliku ne ñoo ngi fii ci barabu président Lat Dior Pa sama xarit moom bëri na lu ma jaay dama mën consommer local ci laay doxee. waaw waaw waaw seen juróom a jaay. mais président sax nee nañu consommer local. très bien kon nag Macky Sall wax na ko fii nee nañu dee leen consommer local dinaa wax kaay ñu jënd ci dàlli ngaay yi. ak dàlli Thiès yi dàlli Thiès yaa ngi nii. moom boo mënut a dem ngaay jaaral Thiès boo jógee Dakar jëm Touba jaaral Thiès. président président jënd na moom jënd na. président jënd na ci yow mi. bi jënd jënd na. ah très bien kii naka la tuddee le ministre de l' intérieur. Aly Ngouille Ndiaye ñëw na fii ma jaay ko fi ay ay ay babu su rafet. kon loolu rek exemple la bu baax a baax. xooluma bii Papousse kii kenn solo benn Papousse du ko dàq. dëgg la dëgg la dëgg la dëgg la. avec le Ganila et machin. kon naa la bàyyi nga jox sa numéro téléphone. yéen nag sama numéro mooy 550 77 553 résidence la Diop waaw. allez merci Baye Ndiaye. jërëjëf sama kër incha allah. voilà ba beneen yoon ciao. ayca jërëjëf waay